dem ni ñuy def con balaa ko sekk ay baadoo la ay baadoo la Ndeye Fatou Diouf ay baadoo la di def loo xamante ni jëkku yiwul ay ëmadi bajaan ñu leen di tungam yaa nit ñi puus leen lan moo ko fi jar nit kenn du la wax puusal yow yaay xam sa bopp yaay xam li nga war a def dëkk la du ngénte du mariage du ngénte du mariage et lii ça date pas d'aujourd'hui phénomène bii nga xamante ne moom la ñu xewal jëkkuliwul lii nga xamante ne moom la ñu xewal jaaduwul kenn ku nekk natt ko ci sa bopp ku sa bàyyi dee man ma ñëw fa di ko filmer est-ce que dina la neex ku sa ndey dee ma ñëw fa di ko filmer est-ce que dina la neex nii laa koy waxee sa ndey wala sa bàyyi parce que da ngeen ñàkk kersa parce que lu ñàkk kersa ngeen xam lu ñàkk kersa ngeen xam. Thione Seck Thione Seck ñépp la dëgg la muy Thione Seck muy ku mu mënti doon parce que lii du pour Thione Seck rek a tax ñuy wax du pour Thione Seck rek moo tax ñuy wax donte déam bi ñëpp la metti man de metti na ma sekk man man ku dégg bett na ma ku dégg bettul waaye man bett na ma waaye man bu fekkee am naa tuuti ci yàlla suñu borom dama koy ñaan rek mu tàbbal ko àjjana mu rëcc lépp lu mu doon def ci àdduna lépp lu mu doon def ci àdduna àdduna jeex na bu yàgg àdduna jeex na bu yàgg li des bëriwul ay tepp tepp rek a ci des ñu ñàkk kersa ñu ñàkk kersa yor suñu téléphone ak di filmé yor suñu téléphone ak di vidéo xanaa loo mën a vidéo mën a vidéo ba gis ki nga xamante ni mooy doomam ju góor mu toog di nangu jaal di nangu jaalu baayam nga ñëw taxaw di ko filmé ba mu lay fël baadoo la ñii naan suñu kalpe daa réer géwali baadoo lay ngeen baal ma parce que xasuma géwali parce que géwal laa man géwal laa mais géwali baadoo lay dem ci dëju jàmbur yi di laaj xooñ ak ñeex di laaj paas bu njëkk ba dëkk amee kenn daawul ñi muy génn pour nga jaale gi sax danga naan damaa ragal ndax ndax doomu gunge mais léegi buñ nee diw dee na ba dugal ko Facebook yaa fay jiitu. du xool nu ñu toogee ay néew bi génn na bu njëkk bu musaane dee ci kër ñu bëree bëri du ñu nelaw mais léegi bu nu deewee boo nee salaamaaleykum ay néew bi yow fu mu nekk fu ngeen ko tëj laay fu fu fu néew bi nekk nee ba nga nee néew bi rek nga war a delloo sa xel ci lu baree baree baree baree bari amin cheikh cheikh noir nga nee néew bi rek la sa lu baree baree baree baree baree baree waaye boo nee salaamaaleykum ay yow nee na anam yóbbu nañ ko mi ngi morgo ba ay yow gis nga ko yaay moom lu ko daloon jarul laaj dee na dañ koo war a suuli réglé leen civilisé leen ba baadoo la ni ngeen di def ci daju jàmbur yi ñaaw na ruslu na coronavirus la nekk bu kenn dëjati Sénégal dafa metti bu kenn dëjati tëye leen dëj yi yàlla ji moom kenn mën na koo teree rey waaye nit ñi war nañoo mën am fu lay a dëj bu nu suulee ba ñëw saraxal bu ñee dee na ci guddi bu nu xëyee nañu suul tey saraxal tey mu jeex ko ne ñibbi sa kër mais fa ngeen di toog def ràcc def làng ko xëy naan ana ndékkili ak fi jamono ji toll Mansour Seck ak fi jamono ji toll ana ndékkili lu ngeen teg añ tey tegagu leen añ laay moom de mi ngi bëgg a naaj xanaa nu jël bopp bopp bopp nag bi démb nu xool nu ko toggee cere reer ñibbi leen seen kër ba leen baatoo la dafa rus lu Sénégal li ñu nekkee dafa rus lu ñun li ñu nekkee dañ nañ kumpa metti nañu doy nañu waar mën nañoo fen bi fi njaay dama am lu ma naqari moo tax bu ma xuus parce que xam naa ne bu ma waxee dinaa fi wax loo xamante ni dinañ ma ko xeebe te instant bi damaa bëgg sama gémmiñ gi may wax loo xamante ne nii Papa Thione da ciy jot ma koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teeru ko Serigne Touba bi mu yaakaaroon mu teeru ko bàyyam Baye Cheikh Seck mu teeru ko loolu laa koy ñaanal yàlla man loolu laay ñaanal Thione Ballago Seck yaay Nogay teeru ko mu rëccu lépp lu mu doon def ci àdduna parce que li may wax sama xol laa suñu papa la ñun suñu papa bu dul Thione Ballago Seck nañu warmal way dawlu yi nañu warmal way dawlu yi te arrêté caméra yi ñu mbaxal dañu mbaxal ah démb kat bi ñu reyeen nag bi mbaq yeeg butut yaa ngi woon fee duñ ko mbaxal yow mbaxal ko mbaxal ko baatoo ba bëgg dee nekk ci daju jàmbur rek ame ko ana Zakaria amee ko faatu bi du joy sekk amuleen lu ngeen di rus amuleen jombukaay dëkk moom sëru dënk la rek yaa awataa kër gu nekk lay dugg moom kër gu nekk day ne fa salaamaaleykum day nuyoo rek moom day nuyoo nga yàkkamti ko nga bëgg ko bëgg ko bañ koo am ak loo ci mën ci am dañ naan yàlla yéex mais suñu boroom moom la mu waxoon ca alxuraan ja daa ba lañ ci bindoon ca kaamil ba dafa wow koŋ koŋ koŋ koŋ koŋ koŋ koŋ allah kulli àllu jaas yàlla yéex ngeen bëgg mbaxal sama genre gi genre biiru njaay gi ko sama genre gi genre biiru njaay gi du ngeen ko mbaxal mbaxal leen ko daxil leen ko nag kat nag bi ñu rey démb bu kii yaa nga fee bëtu di fee bu leen ko sànni du ngeen dugg ngeen ni bi li laay war a suuli Sénégal dafa metti jamono ji conjoncture la ñu nekk conjoncture dëkk bi dafa metti sikki ma lakkandoo jamono ji indi bi da koo suus féppay metti féppay bax baxaar ngir yàlla ak bi ku demati dëkk ba ñu suul ba jaale ba pare jug ñibbi bu leen fanaan amul ay bëyti Dakar laa jógee ay Ndar laa jógee ay maa ngi jógee ba Thiès ba leen baadoo wala jël sa paaso ay retour ba pare nga ñibbi añu ngénte añu takk ñëpp xam nañ day naaje mais añu dëj musuma gis añu dëj bu naaje li ma nekk Sénégal musuma gis añu dëj bu naaje balaa midi di nga gis añu ñoon añu pare na parce que sarax la mais du ko def ngeen ko def toog ràcc ñi ma gën a jëppi ñooñu moom mënuma ci ñoom salaamaaleykum site internet di nekk Sénégal ngeen naan nit man mënuma ci ñoom salaamaaleykum mënuma ci ñoom bis ma ne journaliste bi ne dinaa la jubóoleeg waa sans limite sans limite man ko bugguma bugguma seen jukko yor seeni caméra waaye lu coon sekk doon wax rek damay wut lu ma seeñu xam naa moom ci loolu ngeen di seeñu yéen dem filmer ñëw dugal titre ko titre bu garaaw regardez l'enterrement de Thione Ballago ba Seck yokk ci ay point ay virgule regardez Youssou Ndour ce qu'il a dit ñaan lu a wax li mu wax laabaru sekk dañ kumpa lan la baaba maal war a wax ngeen cliqué du ngeen fa gis du coonkat suñu frère la woon dem gi bett na ñëpp ngeen titre ko lu garaaw mën a duwul mën a fen du faa salix xam nga bu ma sañoon tey du ma sax live mais di ma gis dem moo ma naqari Ousmane Tounkara dañ koo jàpp jàppandu ko man du suis désolé du ma ci wax parce que am naa lu ma mën a wax sama baay bii dee ci laay wax démb ni ko ni ko doon def ci dëj ba ci enterrement ba man loolu laay tey nit yàgg naa yeetu duma génn de 2017 ay sëriñ ñoo génn àdduna ma génn def ci live léegi topp lépp nit kilifa génn àdduna te génn ma génn ma wax duma dama ko soofantal de déedéet parce que wax ci bu baree dafay soof mais kii mënul woon ñàkk Papa mënul woon ñàkk démb ni ko nit ñi def loolu moo ma metti baadoola yi fenkat yi naan sama pol kalpe dafa réer amoon na trois cent mille dangay dóor bëgg ko la jox téeméeri junni Sénégal gu metti yee dafa am ñu baadoola am ñu baax ndoox encore une fois di ngeen mës a mu jóg barke sëriñ Saaliw Mbakke yàlla nañu fi dee bàyyi yàlla nañu gudd fan ak wér ñëpp dinañ ko fekkee man maa leen wax li sekk dañuy nekk ci dëj bi sax ñu war seeni caméra waa ah waa waa waa euh, Youssou ñu ngi lay laaj euh, danga ñëw fii sa xarit sa doom ndey Thione Ballago Seck da gis nit ñi mënuñu wax ils peuvent pas da ngeen sonn waaye duma sonn ku fi dugg publicité ma bloqué la ils peuvent pas mënuñu mënuñu wax kenn mënul nekk ci naqar di wax ngeen tiimal ngeen tiimale seen caméra yi nit ñi ni salaamaaleykum ngeen leen di laaj ak lu ngeen xamoon ci moom li ñu xamoon ci moom ba tey kay loolu la xam ci moom moo tax ñu ñëw mooy baax lañ ko xamal ak war koo gunge këram gu mujj ñun suñu jikko rafetul de ñun sénégalais non suñu jikko tilim na suñu jikko salte gis nga caméra téléphone yi bu ñu ko moytuwul bu ñu ko moytuwul musiba mbàbb këmba gu ñu dugg moo ñu ciy dugal ta temps yi caméra yu ndaw a ndaw ndaw moo am loolu beneen débat la caméra yi yu def ci bouton yi caméra yi ñuy def ci lunettes de soleil yi caméra yi ñuy def ci casquette yi caméra yi nekk ci montre yi caméra yi nekk ci pot de fleur yi caméra yi nekk ci ginnaaw tale yi ngeen leen gis am na kon may signalé Mauritanie caméra am la yoroon comme monsieur Camara la téeméeri junni amoon na ay sénégalais amoon na ay gambien duma tudd tur nag benn meeru sénégalais nëpp nëppal ba coow la mujjul jëm kaw. xam nga ñun ñun dañoo capable ñun lu ne koy créer ñun lu ne ñoo koy def lu bon lu ne ñoo koy àtte waaye nañ delloo si waat xel yi ay reportage ah yàkkamte moo tax këru kilifa diine dañ maa saf këru kilifa diine yi ko xam live bi ñaata minute la ma man koo dagg parce que bëgguma mu gudd dèjà gudd na te damaa sonn te xol laay waxee te bëgguma wax mukk lañ may xeebe loolu tudd naa fi ay duul ak ay fen ndax suñu jikko la këru fa këru kilifa diine yi kilifa gu fa wàcc liggéey bala koo askan wéy yëg ñu waxte ba mu xóot suul la dog laa tàgge kuy daw daw fekk denc nañ ba pare danga ñëw jaale ñibbi artistes yi préparé leen seen waajal seen bopp ku xool coon sekk démb ni ko def nga war a mën a waajal sa bopp ñu yoruñu portefeuille magique pot portefeuille magique boo mënee ci portefeuille magique waxal yàlla jëm wàññi dee gi tuuti ba ci kanam li ngeen di ñàkk jom Mariama Jara ñi soofu ñu lànk artiste yi waajal leen seen bopp xool leen ko ci coon balaa ko sekk papa coon démb du ma ne sax coon papa coon loolu laa tàmm wax Papa Thione xool leen ko démb Amine Omar Sène ku mu wóoranati lii nii mu demee nii nii la nar a demee wool say mbokk ni man kat bu ma génnee àdduna yàlla na yéex woo ma artiste diw artiste diw artiste diw artiste diw ñu defar ma denc ma doo koo yëgle sinon nii ngay mujje nii la jam ci jamtee la Youssou Ndour wayoon ñu bind jam ci jamtee yóbbu suuli ba ñëw lay denc dañ tee ñu jëlu néew bi di ngeen mës a néew mu këpp ndax nit ñu bari tabaadoo la dinañ mës a bi daanu parce que balankaan bi dañ ko aj ni ci kaw demuñu pour jaamu yàlla demuñu pour jaamu yàlla dañoo dem pour xaawi sutura doomu aadama dañoo dem pour wuti lu ñu nettali ñun jigéen ñi duñu yor kurus wala bu ñu yoree kurus bracelet lañ koy def fii lañ koy takk fii kurus gi du pour bii de kocc kocc astafurlah astafurlah déedéet kurus gi fii lañ koy dugal def ko jara yooyu may daan jaay naan jara ay takk ko jara fii lañ koy takk seeni gi dafa ju lang ñu teg nii kol kol fii lañ koy def ci digg bi amee waxtaan bi léeg-léeg nga gis ku toog ba mu yàgg daal ni kex kex kex ay astafurlah ci dëkk nekk di parce que respecté woo ki dee mais respecté woo ki nga jaale si respecté woo ki dee mais respecté ki nga jaale si bu ngeen xamoon li ci dee ni bu ngeen xamoon li ci deele ni mu méttee nit ñàkk woy juram bu góor wala bu jigéen moo ko di ko denc pareegul ngeen di kex kex di ree ñun la ñun Sénégalais ñun ñooy def loolu ndax jigéen moom moom yàlla dafa xam jikko moom moom bu du suuli ñun moom duñu suuli ñun duñu suuli ñun moom bu doon suuli dinañ jaral ñu ay sabar ak tama ñun alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfati yàlla suñu borom ñun bokk na ci ñuy suuli bokk ñu duñ suul de suul <laughs> jigéen bokk na ci li góor ñuy def mu ëpp bu ko jigéen defoon day tuuru bu ci jigéen bokkoon day tuuru ñàkk nañu kersa ñàkk nañu sutura live bi ñaata minute la def s'il vous am leen sutura ak ay xef nga ne dangay dem dëj taalafaal nga ne dangay dem dëj ci jigéen takk say or bili bili ba mu fees takk ba dëgër ku la fa xool am góor ñoo xamante ne sax bu sa jëkkër dee bu ñu jaale si naan la maraakis yaa ngi ci bunt bi rus leen ni dee rus leen ni dee am ah, ñu ne suñuy daal la ngi ci bunt bi ñu summi suñuy daal dal yaa ngi ci bunt bi kii dee dañ koo suuli fanaanagul ci bàmmeelam de te xamoon nag lu ko fay xaar ndax am na ñoo xamante ni lañu liggéey dong moo leen fay fekk ay xol bu rafet ak xol bu lëndëma ci bokk yam li nga liggéey ci àdduna dong moo la fay fekk moom nga fay dajale de na ma ràbb ko nga naan ko ay la ma ràbboon jaay naa ko ay la ma ràbboon létte naa ko amul ci bàmmeel de ñu suuli sa jëkkër salaamaaleykum maaleykum salaam nit ñi dama gund nga naan ko summi naa say samay daal ci marakis marakis yaa ngi ci buntu kër gi Sénégal rek la am Sénégal rek la am dëkk bu ñàkk kersa une heure treize minutes wala wala waxul loolu jooyu naa fekk ngeenaal ñu ngi Xadi